Enda Santé et Transform Health mènent des réflexions sur la loi type sur les données sanitaires pour la digitalisation du système de santé. L'objectif est de faciliter le transfert de données et informations sanitaires entre les pays afin d'assurer un meilleur suivi des malades. Pape Djibril Ndoy, directeur adjoint de Enda Santé. depuis euh, bientôt un an, nous sommes en train de travailler avec Transform Health dans le cadre euh, de la gouvernance des données sanitaires cadre de la digitalisation du système de santé. Et comme vous le savez, il n'existe pas encore de loi euh, qui régit les données sanitaires au niveau national. Et Transform Health, depuis un certain nombre de temps, est en train de travailler sur cet aspect au niveau global, au niveau de, des différentes coalitions à travers le monde, mais également des réseaux régionaux pour euh, faire des consultations, pour rédiger une loi type qui doit être euh, approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé et par euh, de cadre qui va régir un peu euh, la et qui va être adaptée en fonction des différents pays. là, nous sommes dans le cadre des consultations au niveau des différents pays pour euh, présenter la loi et recueillir le feedback des différents partenaires, des différents législateurs et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais globalement, il s'agit vraiment d'avoir une architecture globale qui régit un peu euh, toutes les données de santé en termes de loi au niveau des différents pays pour faciliter un peu la, circulation des personnes, le transfert de données entre les différents pays. Donc, et pour cela, il faut de, de standards donc en termes de gouvernance des données sanitaires au niveau des différents pays qui puissent euh, euh, faciliter un peu cet échange de, de, données entre pays et de suivi des malades donc au niveau des différents pays. Donc c'est un peu ça. Pour quand on a les standards, tous les pays, bien sûr il y a des différences entre les pays, c'est des lois à adapter, mais qu'on un minimum, un minimum standard sur lequel on s'entend, qui doit être contenu dans les lois pour permettre la circulation des personnes, la, le transfert de données entre les différents pays. Et Transform en train de travailler sur ça au niveau global, au-delà du mais c'est plusieurs pays. Et nous, sommes, nous faisons partie des pays qui sont consultés pour voir les feedbacks qui peuvent être ajoutés dans la loi type qu'ils ont draftée déjà donc, euh, et qui va permettre de, de dégager ces standards-là et qui pourra être adopté par euh, l'Assemblée mondiale de la santé et par la suite gouvernements des Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pour un nouveau numéro. dal leen ak jàmm Enda Santé ak Transform Health ñoo nekk di amal nile ay waxtaan ngir xool tëralinu loi type jëm ci donné sanitaires yi rawatina ñu gën a dugal système mu santé bi ci xarala yu yees yi mbébét bi moo di ñu yombal nile jokkalante donné wala sax information ci wàllum wér yaram diggante dëkk yi bu malaat bàyyee ko fi dem fa ca des ñu mën a am information yi war ci moom ngir mën kaa saytu bu baax a baax ñu teewlu ci Pape Djibril Ndoy moo ENDA santé. dañu nekk di liggéey ci euh, wàllu gouvernance des données sanitaires ak euh, suñu partenaire bi nga xam ne moom mooy Transform Health. donc gouvernance des données sanitaires nag mooy nan la ñuy euh, saytoo bépp xibaar boo xam dafa jóge ci nit ñi. te mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu mën ko def digitalisation maanaam def ko ci xarala yu bees yi. te loolu dafa laaj mu am ay ay loi maanaam ak ay euh, procédures yoo xam ni dinañ ko mën a aar ba nit ki mën a nekk en sécurité bu fekkee ni partagé partagé na ay données dañu nekk di liggéey ci benn consultation boo xam ni c'est au niveau mondial mais pour Sénégal la ñuy def consultation bi ak Transform Health ñoom dañoo euh, tëgg benn loi boo xam ni moom la ñuy wax loi type maanaam loi boo xam ni dafay euh, tënk ñëpp genre direction lay doon maanaam foo xam ni foo la ñu war a jaar pour mën a élaborer ay lois suñu dëkk. te loi bi ñuy consulter nii dafa nekk loi standard boo xam ne ku nekk daf ci war a joxe xalaatam nga xam ne bu ñu ko tënkee après nañ am benn loi boo xam ne ci pays bi dana mën a euh, gouverner lépp loo xam ne moom mooy données sanitaires te dina mën a euh, tamit méngoo ak yeneen loi yi nga xam ne dina nekk ci yeneen pays ba nga xam ni nit ku war a jóge fii dem fajj feneen wala yooyu euh, échange maanaam weccee données yi weccee xibaar ci wàllu santé bi mën a yomb ci diggante pays yooyu. fii lañ koy ndax képpee jaajëfal naa leen ci déglu bi dig daje ci beneen numéro.